Assane Gueye observateur lu jëm ci ñàkk yeeg ak xeex bee beeg jàngoro coronavirus xibaar yëbu ci am ba xëy joxe ko tey du yu neex ndax mu ne ci Sénégal xaymaa gum nañ fi ñett ñu mu faat juróom fukk ak ñett yu mu yóbbu loppitaal juróom-ñeent yu ne ci cas grave lii quotidien ne xeex ba nag ma ngay gën a lëj di compliqué mu ne su weesoo yooyu bakkan yu rot ci wàllu ñàkk bi ñu ne yéene kaay bi nee na ndakaaru ci boppam la yeneen i xeeti virus ne juux ay virus yu suppeku di six autres souches mu mel ni kon tey la wàllu gën a ay ci masque yeeg gel yeeg fagaru gi université bi ndakaaru jaar ci xal yi mo xam fa nu duppee Cheikh Anta Diop wala ci corniche bi faaw ngay fagaru ndax étudiant yi ñom fu nu meree génn di jor ay ponkali doj euh, mo waral le quotidien bobé bërepp ñu duppee bërepp bu xam-xam di temple du savoir yéene kay bi ne légui kay bërepp fitna la li waral nak meru étudiant yi moy kilifa yi daara ju kawé ji ño dogal tasum amical étudiant yi teju campus bi naka noonu campus bi di fanu dëkk ak fanuy lekkee le quotidien né étudiant yi xotti nañu xotteet boobeeb dogal assemblée de l'université jël kudd mom lankal na assemblée bi teju campus bi ndax nee na sañ-sañ gi le soleil ne assemblée de l'université génneen nag yat tas amicali étudiant étudiants ñu war faa taxawalit yenen tëralin ci walu codification ngir chambre étudiant yi Liko waral bobé dogal assemblée de l'université moy fitna yudul jeex yi tibir légui ñu ne ci biir université chante Anta Diop dogal bi fitne fitna geneen la fa duggal le mandat des étudiants yi ci fipp gu reey lañ dugg les échos ne ko UCAD kay demb comme lamb ju tas assemblée université bi tëj lu campus bi kud ne ko déet ndax amu ci compétence gi étudiants yi ñom génn ci mbéd mak seeni doj ba Yakulune yak lu ne recteur bu bes baag jëwriñ ji nu dénk mu kawemi walu politique batay ak ngiro am ci waxtan yi lu jëm ci app bi ngir local yi di élection gox yi ci Sud Quotidien source a ne Benenkei échec benen kay amna ci waxtan yoy ndax majorité bi lànkoon ci ben signé lu jëm ci walu ak dogu ngir mu ne bu nu toxalee législative yi du laal app ba majorité bobe mo nangoo signé FRN ñom di Front National de Résistance dal di tëb lank ñom la nu gis dal ci gattal moy élection locale yi bëgg mu am 2021 mu Cissé ONG 3D ba tey ak source opposition bi bo gisee mu taxawé ni day njort ñu nangu toxal local yi bu ko défé mu doon toxal ci législative di watay député le témoin lu jëm ci jàpp mu àpp moomee ba ak jafé jafém né ne baara yógoo gi ci bopam moy wéy majorité ak opposition bi dee ci fay coordonnateur pôle des non alignés le mu gis mom moy manifester yëfi won ci wéru mars mo waral opposition bi ñenn ci ñoom gis na yëfi daal ba tey mbiri xëccio la doolé waye mu né wares na nak déllu xel yi ku né yabiss leuf lu ko may su amul dañuy xalal yoon wa président mujj dese nag coggal gi dogal la ko neex wàllu politique ba tey ak gis-gis bi Papa Samb Mbuub am ci les échos ci ñuy wër di meeting di xumbaay ak yeneen fan yi le mu ne àndu ca ndax benn yàqum xaalis la ba ca topp yooyey mumbaay du jur lu bari li ko gënalu new doxalin mu ne mooy ñu wuti ndaw yabal leen ci gox goxaani Sénégal ñu taataan tawati askan wi dalal leen bu ko defee dellu si yéegal yooyu ki jàmbat ci kaw kilifa gu mag gi di président de la république vox populi moom mbiri toogub mairie ndakaaru la waxtaane ak ni mu gisee ni atu bu mag bu xalifa Ababacar Sall moo waral njàppale gi pare ne na ko mu ne jàpp ca loxo ba di defandoor ak moom dox mbokk gi ci commune ci kër yi ci marché yi ci grand place yi yéeni kaay bi ne teyit am nañ ci ndigam jàppale bu Ousmane Sonko ngir ndakaaru ñu dem ci xolu ndakaaru ca pharmacie de la nation waxtaane pharmacie bi ci boppam ak site ba faak dogal bi ci cour suprême jël libération ne chambre administrative bu ëtt bu kayo ci wàllu atte na dogal bi jëmoon ci jox la nation di pharmacie bu soxnas